ci laa man sax maa ngi man mi maa ngi woon waaw ci laa gis kenn koo xamante ne dafay jàpp ñu ne carte man dama seetaan rek man man soo ma fekk as benn kat maa ngi gis Instagram bi bu euh, ma sax moo tax noonu ci laa ne ah xaaral ah, comme man damay def social xaaral ma def collectif bon bi may euh, contacté ak bi nii sax contacté wu ma sama Facebook ma ne admin yëpp nañ ma def seen numéro ñoom tamit depuis yàlla ñu wàccee seen bopp yëpp jox ma seen numéro ñu def ko ma ne leen bon mënal naa ko sama bopp parce que yàgg naa jàppale ay nit ne néew ma nit yi kaay leen mais dama ne comme ñëpp ay jigéen lañ nañ fàccandoo doogandoo ñu waxtaan suñu biir ba jiboo ci liñ koy wutal ak yëpp waaye ñu wax dëgg fa yàlla suñu gudd jàmm la laaj ci dañ ko wax parce que wax bi yàlla su leeku ginnaaw yàlla ñun ñoo tax ñun lañu waaye Freedom. gisee moo gis suñu cagnotte bu ñu def C'est une nga xam ne ñoom la ñuy choisir voilà. j'ai entendu des propos disant que j'avais un gars, un producteur de musique, je ne sais pas. solo ñu eh, may remercier bu baax sa participation mais comme l'instant ñi bëgg participer dañoo bëri waaw oui oui je comprends je comprends yow ya yaa ngi wootee fu sori moom ya ngi wootee fu sori franchement ñu ngi lay remercier bu baax ba parce que sa sa dugg tamit am na solo lool tamit waaw ñu ngi lay remercier bu baax ba baax. bon Marie ñu bàyyi la nga àggal yow waaw waaw waaw waaw. léegi ma daaneel benn point dem sama yoon comme tam bis bi dafa wax ak man loo xamné génnee ko nag parce li may wax nii bañuma génnee ko dama ko laaj ba pare sinon du ko génne moom nee na ma mari man ko naa mu ne ma dama lay laaj benn affaire nan jëlee Miss Sénégal foofu la commencé mu ne sama dëkk du ma ne ñëpp mais majeure partie bi yëpp xas ma mu ne mu métti woon torop si man mu ne man lañ mel du ñu faytaal dañuy xam ba nee da daan dugg ci néegam di jooy mu ne ma lan dundee cinq mois di daw ci liñ ma war a jot jotuma mu ne te loolu sama ñàkk la man maa ko liggéey mu ne ma ciy topp di ko topp di ci topp jotaguma ko mu ne ma mu ne ma mu tegal ma ci ne ma man xam naa ay critères bu miis nee na ma miis warul am doom la wala ñu faagaagal sa fan. parce que mu ngi may dépassé parce que bi mu njëkk a bi mu njëkk a yor li nga ma ñu ngi may nee ñu ngi koy menacé ñu ngi koy que depuis bëgg démb ba léegi jag nañ li ci des nag yàlla yàlla ànd te leer ndax ñun moom comme ni ma koy waxee yëfi seytaane yëpp ci wuñu ñu taxoon ñu foog yàlla di àtte ah, maa ngi lay bàyyi euh, di mën ba léegi est doo woote ci numéro bi s'il te plaît est doo woote ci numéro numéro numéro bi. Fatou s'il te plaît wooteel ci numéro bi menaces yi la war a bàyyi nit yi ñuy jàpp di leen menacer war a bàyyi waaw dañu bàyyi nit yi ñuy menacer li ñuy def ñoom ñoo ko def buñ ko deful kenn kenn du ko kii ñoom ñoo ko def allo oui ça va kooku àll. mille cinq mille deux mille francs ñu ngi lay déglu. 大家那个用的，用的那个。 gente naturellement si monsieur aucun faux yoroo dërëm yaay paase sa bopp naka la say supporter ak say parents di doo topp la. restaurants 不然，你没有。

oui ma ne ko oui salaamaaleykum maaleykum salaam ah, miss aha yow la man miss Labado laa bokkoon miss Labado nga bokkoon waaw miss Labado waaw ñoo ko def sama témoignage waaw ñu ngi lay déglu naa bëgg naa ëpp naa Thanks. 明年。 salaam mais dama la bëggoon participer ci affaire bi yow ci miis nga bokkoon man noonu mais bëggoon nañ ma def comme genre affaire yooyu noonu benn journaliste de télé waa léegi ba yow dinañ ñëw ci cas tey miis yi ñëw ay dinañ ñëwaat cas naka def noo tudd yow yow ci miis nga bokkoon et eh, Sénégal ban année deux mille dix neuf la yàggul et eh, Sénégal boobu deux est-ce que tàmbaliwul deux mille dix neuf sax waaw Thank you. оптимистик am na ñoo xam ne woote nañ te dañ ma bett ma am na koo xam ne nee na je je euh, am na koo xam ne nee na nañ ko jël parce que moom il a bossé ci communauté euh, comité bi waaw il a des choses à dire allo. vous faites partie du comité ou bien vous, avait avez des familles mises si na def ça va très woon da nga bëgg a témoigner waaw yow Miss ban année nga vingt et yow ci ban Miss ban dëkk nga ñoo la représenté waaw waxal anonymat aci ñu ngi lay déglu yow léegi ci te Miss

bind message am ñoom message yaa ngi bëri bee bëgg a dee. ok d' accord. ok d' accord en tout cas je reçois beaucoup de messages en ce moment de gens qui me disent qu'ils veulent parler allô. maaleykum salaam. maa ngi sant alhamdulilah. waaw yow fan nga bokk. yang penguasa negara Fall la wax Pape Fall la wax moom Pape Fall. honest kii nee na dafa am cas important bu may wax nee na kaso Amina Badiane sax xaj na si bébé si est que duma ko jël après moo wax ak yow ok d'accord silly you. Merci. solo eh, am sa témoignage am na solo loolu sax yaa plus de cent quatre messages yow moom xam naa ne yii yëpp moom boo paree moom bu yeboo nga fay sa téléphone bi rek waaw ba suba incha allah bon est-ce continuer live bi suba parce que là moom euh, yëpp xaju si tey déjà ñu ngi ci trois heures de temps franchement allo.

Nazis. téléphone sax yow mi ñu bëgg a fay J'ai tout mon temps pour ben Ben de wala dimanche samedi merci beaucoup.